salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala dem mbokk yi seen xarala académie duñu topp suñu tutoriel te dañoo ñëwaat ci lu am solo mu nekk formation yi nga xamante ne dañ ko doon dañu doon nañ ko def si xarala bu bëri tey ñu ñëwaat si ñu ñëw si Python parce que dañuy laaj euh, léegi ñun jàng nañ Python pare lañ mën def si Python léegi ñu bëgg ñëw si benn wàll mooy naka ngay créer application web ak Python voilà di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi daal koy partage ma ngeen tamit visité xarala point tech pour jot lépp luy tutoriel bu bees bu génn bon tay suñu tutoriel dañu dañuy créer ben application bu simple par exemple comme contrat wu téléphone yi ni ngay def ba ba créer genre application bo xam da ngay mëna enregistrer nit ki turam ak santam mëna enregistrer numéro de téléphone am mëna enregistrer aussi email am bu nekkee am na ko voilà léegi noonu lañ bëgg def te ku nekk contact bi nga enregistrer rek nga am nga am nga mën nga am droit gis ko bo nga am droit modifier ko bo nga am droit supprimer ko même bu nekkee bo supprimer du dem Program application présentation moo nekk nii contact comme ni nga ko gisee barre navigation bi dama si utiliser Bootstrap donc damay déconnecté fii nii ngeen xool voilà bu neex connecté wu bu neex déconnecté wu léegi bu ma bësee contact daf may laaj ma connecté wu pour mën a continuer parce que fii benn page boo xamante ni dafa am secret à propos moo nekk nii ok léegi mën naa bës contact ma connecté wu bon yaakaar naa créé naa benn compte sànq ok damay connecté wu nii ma xool ba xam. ok connecté wu naa mu ne ma contact vide parce que dugalaguma benn contact voilà gis na comme ni nekk euh, am na tamit benn back office bon lu ñuy wax back end loolu yëpp dinañ fi ñëw après wax leen nu muy demee fii nii fi mooy administration application moo nekk nii waaw mu bësee contact danga gis contact yi fi nekk gis nga am na contact yi fi jot a nekk mais man mënu ma gis parce que contact yi créé wu ma leen ok donc damay créer benn contact léegi nii euh, bambamba

téléphone email enregistré léegi mu xaar muy voilà gis nga ba Amina moo nekk suñ premier contact boo xam ne enregistré boo defee nii da nga gis auteur mooy admin benn mun nga ko modifier mun nga ko tamit supprimer boo tamit du denc base donnée bi mais doo ko mën gisaat fii voilà <laughs> parce que première règle base donnée mooy il ne faut jamais supprimer ok c'est bon modifier mën ko modifier Amina bon am na benn Amina boo xam ne ah, c'est ah enregistré gis nga modifié bi am naa daa ça marche très bien bon boo ma jumee sant nga ok à propos déconnexion léegi boo déconnecté woo mënoo dugg fii mënoo gis contact voilà mën nga visiter application bi yëpp mën nga tamit inscrire bu nekkee nouveau utilisateur nouveau utilisateur nom de email mot de passe confirmation mot de passe boo bësee du dem parce que euh, à défaut euh, champ yi obligatoire bu neexee boo amee compte mën nga connecté ma yaakaar ni cours dina nekk lu intéressant di leen wax ngeen abonné chaîne bi daal koy partagé ñu ngi ñëw ci yeneen vidéo merci